إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد عليه الصلاه والسلام عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته الخطبة عن ماذا بعد الحج mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla subhanahu wa taala di ko dimbali ko di ko ñaanal jéggal suñuy rëcc rëcc bàkkaar di ko ñaanal yàlla mu teg ci ay hidaaya muy ab jub moom bi nga xamante ni képp kum ci teg jaxe nga waaye képp ku mu seetal ci maam téem ba nga sànq amul kenn ku la mën a jubalaat ñuy seede ni amul kenn ku yoo jàmm ci dëgg dul yàlla subhanahu wa taala te ñee ñu koy bokkaale kenn ñuy seede ni suñu sang Muhammad alayhi salaatu wa salaam jaam la daaw la tànnee xam la xaritam yàlla yàlla fayal ko moom ak saxaaba ak képp ku topp ci jubam di rafetal boo gis penc di taxaw mbokk yi ñuy dénkaat suñu bopp ñu dénk ragal yàlla ak topp yàlla suñu xutbay tey bi ñu ngi koy fas yéene amal ci maada baaxal xarit ana nan la ujaat bi di meloo ginnaaw bi mu jógee ci aj mbokk yi lii di alxaj bokk ci arkaanul islam yu juróom mu ci li ci gën a métti nag ca waxtaay ci kàttan ci alal ci xam-xam ci ragal yàlla moo tax li nga xamante ni kii di jaamu yàlla yàlla xéewal na ko ci junni doomi aadama amaana sax am na ñoo xamante ni am nañ alal bu ñu dem am na am wér bu ñu dem am na ku gën a ragal yàlla bu ñu dem yàlla dem xadima yàlla xéewal na ci junni doomu aadama yooyu yóbbu la nga bokk ci ñi aar bokk ci ñi gis kaaba bokk ñi ci dem ba laal lii di xajaru aswad bokk ci ñi tawaaf ca kaaba bokk ci ñi julli ñaari rakaa sunnay tawaaf ci ginnaaw maqaama ibrahim bokk ci ñi daw safaak marwa bokk ci ñi yàlla xéewal na taxaw arafa yàlla boole la ci ñi mu wax naan izhabu maghfuran lakum dem la ñu ngi jéggal naa seen bàkkaar mbokk yi xéewal doogu képp ku yàlla defal la nga war a njëkk a def mooy sant yàlla ginnaaw nag mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ni innama bu'istu li utammima makaarima al-axlaaq mu ne yàlla dafa yabal yónni ko ngir mu mottali jikko yi mu defar jikko yi mbokk yi defar jikko yi ci ni ko alayhi salaatu wasalaam jàngale ci xadis bi mooy jaamu yàlla yu yàlla digal muy ay farat ci ñun def li koy def jeexital li muy jeexital ci sa dund ci sa jikko loolu mooy def ci yow nga bokk ci ñi nga xam ne fi ñooy di rafet jikko bu ñu demee ci lii di as-salaa muy julli yàlla bu ko diglee daf ni wa aqimi solaa taxawal mu julli ndax inna solata tanha an alfaxshaa wal munkar ndax julli soo koy def dafa la war a génne ci lépp loo xamante ni ay jaaxaan ak fol ya gis ni ko jaamu yàlla la boo xamante ni yow mën nga cee natt sa julli ndax yàlla mi ngi koy nangu wala nangu saay booy julli te terewul yaa ngi sóobu ba tey ci ay jaaxaan des ci ay jaaxaan nga xoolal sa julli ndax julli dafa bokk ci li nga xam ne daf lay teree def lépp luy ñaaw teef ak lu ñu si bu ngeen dee ba tey ci lii di as saka muy jaamu yàlla bu yàlla digle muy génne ci sa alal zakat yàlla daf ne xuus min amwalihim sadaqa génneel jëlal ci sa alal bi nga génne ci li nga xamante ni moom mooy zakat ndax lañ cay génnee moom loo dafa am ñoo xamante ni ñooy almustaxlaquun ñi ko yelloo ñoom lañ war a jox mu ne génne bi ñu koy génnee moom zakat ci sa alal la fay des da koy laabal ndax la nga génne bokk ci ko bokk ci bàyyee rek alal bi nga yor alal bu soxla la yamu ci li muy laabal ci alal bi ci bàyyi boo génne sa zakat mooy wala yàlla mu ni watu zakkihim biha génne ngay génne sa alal di ko joxe comme zakat wala sarax nee na daf lay génne ci jikko ji nga xamante ni muy jikko yi may nga gis ni kon beneen jàmm yàlla bii di zakat dafay génne doomu aadama ci jikko ji nga xamante ni jikko yi may innama bu'istu li utammima makaarima al-axlaaq bu ngeen ñëwee ci beneen jàmm yàlla bi ñuy wax as-sawm muy koor moom université la boo xamante ni boo ci sooboo ci weer bi moom kay jeexal lam lay tere wala lam lay digal lépp ci wàllum jikko la boo xoolee dina la jàngal moom koor asabu muñ dina la jàngal al bir mooy def njëkk dina la jàngal al ixlaas ki nga xamante ni dafa saay saayal sax bu duggee ci weer boo damay gis mu tàmbali di sell dina la jàngal moom koor ba tey silatu rahim mooy jox sa mbokk dina la jàngal moom koor ba tey li nga xamante ni mooy ragal yàlla dëgg dëgg ragal yàlla yàlla moom koy digal ni yaa ayyuha alladina amanu émir ni gëm kutiba alaykum asiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun faratal na ci yéen lii di ko wax comme ni ma ko farataale woon ci ñi leen jiitu woon ci ay xeet wante ngir ngeen jële ci ragal yàlla def ay ndigalam bàyyi ay tere noonu la lii di aj di tamit ginnaaw bi ci ujaat bi jógee di defar ci ay jikkoom ndax yàlla bi mu waxee ne al hajj ashhurun maalumaat fa man farada fihinna al hajj daf ci tere ca aj mu ne falaa rafata wala fusuqa wala judaaya fi hajj bu ngeen demee ba ajati fexe leen ba bu leen fa def lenn luy mooy yàlla lenn loo xam ne day leen jure bàkkaar bu fa sax nekk di werante wala day xullu te yooyu yëpp dafa delluwaat ci jëmbal ci yow di ay jikko yu rafet mbokk yi kon ginnaaw ak ujaat bi yàlla dafa doon xéew mu dem ci yooyu lee bërëb du tedd ana lan la aj li war a def ci moom dëgg dëgg ci ay jikko mbokk yi bépp tukki bu doomu aadama di tukki am na ay ahdaaf ay objectif am na sabab tax muy def tukki ki nga xam ne dafay jóge dem Italie wala France wala moo xam bépp loo xam ne la ko fa yóbbu business la dafa dem pour muudu muudu ji pour sa fàqu ji lii di alal la mu fay def ji lépp mooy nan lay def ba am alal lay nekk ci xalaatam mooy su ma amee alal ak coono gi ma ci def nan laa koy investir ki nga xamante ne dañ ko yóbbu mu dem ba tey tukki ji ngeen yokk ay capacité moom it bu demee ci tukki ma ba ñëw loolu la dafay wax différence bi am ci fi mu jógee ak la mu jëli ji woon lii di àdduna jaamu yàlla bu fa demee ca baytullahil xaraam la nga fa doon def lépp ay jaamu yàlla dem di julli ci ci jàkka ya léeg-léeg nga dem ci xaram ba julli ci tawaaf yi ngay defiti koor nga fay woor dimbali ngay dimbali nit ñi muñ di nga fay muñ yooyu la yëpp nga lamboo woon ci jamono jooju bu jugee ci aj ga dafa war a des ci yow nga nekk koo xamante ni kuy dimbali nit ñi kon kuy dem ci béréb yi di jaamu ci yàlla ci jàkka yi bokk ci ñi nga xamante ni lépp luy axlaax jikko ju sell ñu koy séntu ci yow di ko gis ci yow mu bañ a nekk loo xamante ni dangay jóge ci aj gi rek delluwaat ci li nga xamante ne daanaka dund gu jaxasoo la kenn xamul lu muy nirool muy dund tey moo tax yàlla mu ne la wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin na nga jaamu sa borom sax ci comme nañ ca nekk woon ca fa nga jóge woon na nga jaamu sa borom comme ni ngay bàyyee lépp dem wuy gi ci jàkka de na nga jaamu sa borom comme ni nga jëlee ci sa alal yëkkati ko def ko ci yoonu yàlla loolu na sax ci yow ak keroog ngay gisante li nga xam ne mooy dëgg mooy faatu mbokk yi ginnaaw aj ba tey bu jullit bi jàpp ne mukk lii di aj de dépense la mooy dépense sa alal bu bëri si benn tukki rek romb na loolu mbokk yi ndax alal bi la yàlla dégg fii ci kaw suuf boo ci jëlul nga jaamoo ci yàlla def ci lu lay jëriñ ay tuyaaba fii boo faatoo ko bàyyi ko say compte bancaire dañ la koy miraasal ndax fa nga jëm yàlla mu ne yawma laa yanfa'u maalun wala banuun illa man ataa Allaha bi qalbin saliim yawmal qiyaamati mu ñoo faa ñëw alal bi la fa jëriñ doo ko fa yóbbaale fi nga koy bàyyi di miraas ko sa ginnaaw sa njaboot yawma yafirru l-mar'u min akhiihi da ngay daw sa doom sa doom di la nag kon loolu la fa jëriñ la la fay jëriñ mooy nga indi fa xol bu laal bu set wecc ci topp yàlla nangul yàlla mbokk yi ginnaaw nag ba tey ana lan la ko jaay bi war a jikkoo war a meloo ko jaay bi dafa bokk ci béréb yi nga xamante ne doon na fa dem ci Makka Mukarrama meloo kaa ñoom doon meloo ci colpet ngay sol mooy xarmalu kese bu fekkente ni kuy settantal nga dëgg dina la fàttali bisu yowm al qiyaamati ndax loolu lay wër ca nga tàmbalee rafet lépp looy def yaa koy defal sa bopp ci anam yoo xamante ne doo fa xam ne kii di buur ak baadoo la doo fa xam ne ku am alal ak ku ñàkk doo fa xam ne ku dul nit ñi ñëpp ay jaamu yàlla la doo gën lay melokaan war na jëmbat ci yow lii di ak suufe wàccee sa bopp nga nangoo doon jaam yàlla ndax yàlla bi muy yëpp te alayhi salaatu wasalaam di ko jox lii di julli daf ne subhaana alladi asra bi abdihi da koy tàggal garaatoo ak di ba noppi soog koo jox wala mu yëkkati ko ci ay garaata képp koo xamante ne bëgg nga yàlla di la yëkkati saa su nekk wàcceel sa bopp ci suuf yàlla yëkkati ko moo tax alayhi salaatu wasalaam di waxaat ci xadis mu ni laa yadxulu janna man kaana fi qalbihi mithqaala xabatin min al-kibr bu dugg aljana mukk koo xamante ne nekk na ci moom lu toll ni atum ci grëy kon lii di aj dafa bokk ci li nga xamante ni da koy def ci doomu aadama bi mooy wàccee ko ba mu nekkaat jaamu yàlla génne ko ci lépp loo xam ne muy réer ginnaaw ak mbokk yi ba tey ak zikru wa shukr mooy tudd yàlla ak di sant yàlla ndax yàlla subhanahu wa taala bi mu diglee aj ba wax béréb yi nga xamante ne mooy manaasibul xaj ya lam ca wax mooy laysa alaykum junahun an tabdaw fadlan min rabbikum fa ida afadtum min arafat fazkuru llah tudd leen yàlla ca fan ngeen jëm inda almasjid alharam fi muzdalifa lam ca tegaat mooy waskuruhu kama hadakum minhu wa in kuntum min qablihi la min adalin tudd yàlla ba tey yàlla yomb ba tey ci li ñu fàttali ginnaaw manaasik yi lan nga war a def mu ne summa afiidu min xaytu afaada naas wastaghfirullah na ngeen jéggalu seen borom ba tey li yàlla di digle ci yépp ci manaasik yi ginnaaw bu ci jàll rek lam ciy digle mooy di tudd yàlla ak di ko sàbbaat yàlla mu ne fa ida qadaytum fa ida qadaytum manaasikakum fazkurullaha wa dikrukum abaakum aw ashadda dikran ginnaaw bi nga xamante ne manaasikul xaj yi jeex na tàkk ca Makka ba ba ngay delloo sa kër la nga war di def saa su nekk muy di tudd yàlla di sàkkal yàlla comme ni ko alayhi salaatu wasalaam déggee woon benn saxaaba bu ko laa yazaalu lisaanaka ratban min zikrillah sa làmmiñ bi bu mu fekk mukk ci di tudd yàlla di sàkkal yàlla subhanahu wa taala mbokk yi ginnaaw ak jàmm bi dafa war a dàppoo lii di tudd yàlla dafa ca jiitu moom mooy jàng alquran karim di tudd yàlla te di ko sàppaat di ko jéggalu waaye di fréquenté bërëb yi nga xamante ni mooy bërëb yi nga daan fréquenté ci masjidul xaraam ci jàkka ya ci bërëbu sell tudd yàlla aqulu ma sami'tu wastaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin min sharri ma astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ginnaaw bi ñu santaate yàlla subhanahu wa taala di julli di selma ci yonente bi alayhi salatu wasalaam di seede ne amul kenn ku war a lu war a jaam ko dul yàlla subhanahu wa taala di seede suñu sang Muhammad alayhi salatu wasalaam yàlla du wàcceewal beneen yonente ginnaaw moom sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ba tey maaga baatal xaj ana lan moo war a topp ci ginnaaw xaj ci ujaaj bi li ci war a topp bokk na ci asabr mooy muñ ndax lii di ujaaj wala kii di ujaaj dana muñ ala taat ci topp gi mu doon topp ndigalu yàlla ci mag waxtu julli mu su ko sàggane ca mag amul benn ci ponk yi boo xamante ni daawoo ci def yitte ngir matal ko ngir sa aj bi mën a mat loolu lépp la nga daan def mooy da nga daan muñ say coono ngir def ci loolu nga xamante ni mooy jaamu yàlla muñ tamit ci alal bu rot muñ ci lépp loo xamante ni gaar na la ci aj bi ñaata bu jaaj ñoo dem ba mag changement de climat bi jàpp leen ba seen yaram kirée ko fii beneen melokaan wante ànd ak lépp ñu muñ ko ngir nangu jaamu yàlla bi nga def muñit seeni nelaw di jug guddi gi di ko naafila muñ seeni nelaw di dem sax ginnaaw aj bi di defi si seeni umra ngir yokk seeni xeetu jaamu yàlla kon bokk na ci li nga xamante ni jullit bi war na koo jël ci aj bi te saxoo ko mooy as sabr muy ak muy muñ ginnaaw nag ba day bokk yi isyaanu shayatin mooy musu muslu ci seytaan mbokk yi leneen loo xamante ni doomu aadama yàqule na ko topp ba kanam fii ren seytaan moo ko ci dugal ginnaaw ak mbokk yi yàlla defal la xéewalu nga dem ba bokk ci ñu yàlla ni dem leen jëfal na leen seen bàkkaar ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam alxajjul mabruur laysa lahu jazaa illa janna ak bu nangu amul lenn lu fayul ajjana kon jullit bi war na jàpp ne man beneen page bu ubbeeku sama dund la page boobu nag benn combat nga am ak kenn mooy iblis la amatullahi taala ci lépp loo xamante ne mu ngi la ciy xirtal ci mooy yàlla di la xirtal di la sàggal loo ci jaamu yàlla nga fexe fee xeexal sa bakkan ba nga mën cee mucc joo soobu ci li nga ànd moom mooy ndigal yàlla yi mbokk yi ginnaaw ak ba tey al istiqaamatu mooy taxaw sax dàq woo kon ci yoon bi nga xamante ni woon siratul mustaqim yàlla mu ni inna alladina qaalu rabbuna allah ñi nga xamante ne dañ ni yàlla mooy sama borom ba mu tax nga ni bërëb dem julli ji nga ni bërëb fëkk ci sa alal dem aji ji nga ni bërëb jël ci sa alal saraka nga ni bërëb dem seet ji koo xamante ni dafa feebaroon ngir nga sàkk ju tubaab fiyaa lii de képp koo xamante ni wax na ne rabbuna allah yàlla mooy sama borom la ca des mooy summa staqaaw nga taxaw nag ca yoon nga nekk ca yoon ba wow ca kaw mu nag yàlla mu ne ñooñu de tatanazzalu alayhim al malaika yàlla nañ ko yàlla defal yàlla daf lay déployer arme ay malaika ana lan moo gën a bay sécurité yàlla yabal la ay malaayika ni la allah taxaafu wala taxzanu mbokk yi loolu mooy sécurité bul am looy ragal buy am looy tiit ci li nekk sa kanam ndax yàlla nga bay lool fii ci àdduna te allah day tamit boo ñëwee di nga ko fekk sama fay mu ni wala taxzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tuadun dinaa leen bëggale àjjana ji nga xamante ni man maa leen wuti man yàlla te yàlla ay waxam bu soppeeku moom mbokk yi ginnaaw ak jullit bi naa assainiraat ak dundam xam ne li nga xamante ni mooy li ko war mooy li ko yàlla war na ko ci kaw suuf mooy jaamu yàlla rek ba ba dëkk dina def dina def mbokk yi nag uuti na ak lool li nga xamante ni dinañ ko gis ci jamono ci ginnaaw ak ginnaaw aj yàlla dafa la xewal ko màgg bi nga dem ci jihaad bi nga xam ne su lay Aysa dafa waxoon ni alayhi salaatu wasalaam ñun jigéen ñi lan mooy suñu jihaad mu ne leen alxaj wal umra kon jihaad la goo xamante ne képp ku ci jógee la nga war a def mooy fekk ko fa ndokkeel ndax jihaad la dafa ji woon yow mi xam loolu est ce que di nga ko wéccoog li nga xamante ne moom la ñuy gis ci jamono yi mbokk yi ginnaaw xaj danga naan lan moo xew fii ci xawaar ci ay puukere bu amul fenn ci ay pasaare bu amul fenn ci alal ak ay jaxasoo ak yu kenn xamul yoo xamante ne kenn xamul la mu dégg ndax loolu moom la ñuy xaar ci ki nga xamante ni yow dem nga ba yàlla ne la jéggal naa la say bàkkaar nga war a ubbi beneen page sa dund ngay woote ay ndaje yoo xamante ni laa xawla wala quwwata illa billah mbokk yi am na ci koo xamante ni moom dañ koo jox biir màkk ñu ko yaay dañ laa ko biir màkk mu ne mën a ko maa def ndax amatuma lu mu demalee laa hawla wala quwwata illa billah kooku est-ce que xam nga li xew am koo xamante ni moom ngir mu mucc ci loolu xeexal bakkanam xeexal seytaane dafa jóge màkk yi ñu ñëw mu leen dama covid ñëpp tasaara ci noonu la muccee moom ci xawaare xawaare wu ba tey ndax li mu tudd mooy damaa ko bëgg mbokk yi nañu delluwaat bu baax a baax suñu bopp gën a jubóole suñu bopp ak suñu borom subhanahu wa taala te xam ne dem màgg te nekkul ay caaxaan xéwale bu la yàlla defal koo xam ne boo ci jógee la nga war a def mooy di sant yàlla la sax ndax di ko tudd ak di ko sàppaal rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا الى صراطك السبيل صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الاخره وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى الصلاه يا حمد